nek candidat uh, ci uh, mairie de Dakar uh, jamono ji polémique tamit amna ci polémique, ndax gi nga tribunal de Dakar le 10 novembre Il aussi eh, dinañ revue de l'actualité suñu ci revue de presse ngeen koy am ci d'information ñu daal di koy dooree ak li nga xam ni moom mooy accident boobule am ci yoonu Nioro bi dal ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Pastef xam ngeen ni Ousmane Sonko jamono yële mi ngi woon fa li nga xam ne moom mooy diwaanu Ziguinchor bi mu fay jóge nag euh, ngir wutal si fi nga xam ni moom mooy Ndakaaru ci lañ daal di def accident li nga xam ni moom mooy cortége bi euh, def accident ñetti nit nag ñoo xam ni bokk nañ ci entourage Ousmane Sonko euh, daal di ci ñàkk seen bakkan am ñoo xam ni am nañ ci ay gaañu gaañu yu ñi nga xam ni nag ñàkk nañ seen bakkan ci accident bi mën nañ ci gis ki nga xam ni moom mooy Ibrahima Fall nekk caméraman euh, bu Ousmane Sonko keneen ki ci des ñu koy woowee Fifty moom mu bokk ci li nga xam ni moom mooy garde rapproché euh, bu Ousmane Sonko keneen ki nga xam ni nag jot nañ ko yóbbu hôpital waaye foofu lay ca hôpital ba la ñàkkee bakkanam moom mooy Moussa Camara loolu nag nekk lu tiis loo xam ni euh, dal na ci kaw parti bi li nga xam ni moom mooy Pastef ki nga xam ne nag moom mooy Ousmane Sonko déplacé wu na euh, dem euh, ci ñi nga xam ne ñoom ñooy njabootu ñu ñàkk seen bakkan ngir masawu leen euh, ci tiis gi dal seen kaw. leneen loo xam ni marqué na actualité bi di prix bi nga xam ni livre Mamadou Mbougar Sarr bi remporté na ko prix bi nga xam ni nag waa académie Goncourt ñoom ñoo koy décerné livre bi nga xam ni mi ko duppe la plus secrète mémoire des hommes moom moo daal di raaya boobu la loolu nag nekk contentement bu rëy ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais bëri daal di koy félicité waye félicitation yooyu nak ñu bari dañu ko dal di retiré biñu démé dal di xol leneen li nga xamni ki di écrivain sénégalais bi bindoon na lata livre bile ñom nak li ñuy déplorer mooy position yi nga xamni ni am na ci walum borom ñaari tour yi nga xamni ni neexu position yooyu nak ñom biñu ko lire ñu ko gis ci livre bi nga xamni mi nga ko génné en avril 2018 dal di koy dippe de purs hommes loolu nag neexul dara ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi ba fi nga xam ne nag moom mooy Twitter ak Facebook ñu bëri di dal ci kawam leneen loo xam ne tamit ñoom jàpp nañ ni manque de respect la vis-à-vis ci sénégalais yi moom mooy benn article bo xam ni defoon na ko di wax ci li nga xam ne moom mooy bi Youssou Ndour di amal fële nga xam ni moom mooy ca France moom nag mi ngi ci niñ ko mën a waxee wax ci li ci ñi nga xam wuyu ji ci Bercy boobu anam bi nga xam ne ñoo ko fay demee loolu nag neexul dara ñi nga xam ne ñoom ñooy internet yi ba ñu bëri daal di dal ci kawam. ñu daal di wax ci leneen wax ci ki nga xam ne moom mooy Simon Simon nag xam ngeen ni jamono ji ñu ngi ko téye fële xam ne moom mooy prison li ko waral nag moom mooy ay passeport diplomatique yoo xam ni dañu ko doon joxe ci anam boo xam ne jaarul yoonu loolu tax nag ba ñu koy ba ñu daal di koy jàpp fële nga xam ne moom mooy prison moom ak ki nga xam ne moom mooy kilifa jamono ji nag kii di rappeur bi la ñuy xam la ni li nga xam ne moom mooy état de santé am euh, taxu ko jàkk loolu euh, kii di avocat am nag daal dinay dem gis juge bi nga xam ni moom moo yore dossier bi la daal di koy jébbal état de santé bi nga xam ne euh, moom mooy bu Simon loolu nag nekk information boo xam ne jot nañ ko ci ki nga xam ne moom mooy Simon nekk fi rappeur jamono ji nag yoon teg ko loxo ci wàllum trafic de passeport diplomatique Barthélemy Diaz finalement nekk ki nga xam ni moom la waa yeewi askan wi eh, di daal di teg ngir mu daal di leen di représenté ci li nga xam ni moom mooy élection législative yi moom nag mi ngi xëccoo li nga xam ni moom mooy mairie eh, bu Dakar kii di Barthélemy Diaz nag kii di eh, avocat wam di maître Khoureysi Ba moom mi ngi wax ni daal di nañ koy assigné ni dafa war a wuy ji fa li nga xam ni moom mooy ci juge bi le 10 novembre ki nga xam ni nag moom mooy avocat bi li jàpp ni. ñi nga xam ni ñoom ñoo def euh, loolu dañoo bëgg euh, xawxatal ki nga xam ni moom mooy Barthélémy Dias maanaam euh, dindi ko ci li nga xam ni moom ci la nekk maanaam xëccoo li nga xam ni moom mooy mairie bu Dakar ba tey ci élection législative yi nga xam ni ñu ngi koy préparé ñu war ñu war kaa amal en 2022 kii di Bougane Gueye Dany nag yëg ngeen problème yi nga xam ne amoon na ko jamono yi ñu génn fële nga xam ni moom mooy groupe de bi euh, di euh, des médias maam moom nag jàpp na ni intimidation la ñu ko doon def ginnaaw euh, bi ñu bloqué ay comptam ay policier daal di wàcc fële nga xam ni moom mooy fële ca Sen TV ngir def li nga xam ni moom mooy inventaire problème yooyu nag tax ba ñu bëri yaakaaroon ni ki nga xam ne moom mooy président groupe des médias bi la dafay bàyyi ay ambition politique am moom nag daal dina confirmer ni dina bokk ci li nga xam ni moom mooy élection législative yi moom sax dina bokk ci li nga xam ne dañuy xëccoo mairie bu Dakar daal dinay déposer candidature am officiellement wax ni dafay bokk ci jongante gi nga xam ni moom mi ngi koy amal ak yeneen a naataangoom ngir jël li nga xam ni moom mooy mairie bu Dakar ñu daal di jeexal sport wax ci li nga xam ni moom mooy éliminatoire coupe du monde 2022 kii di Aliou Cissé nag bi yoon daal di nay woo 25 joueurs 25 joueurs nag la daal di woo eh, ci match yi nga xam ni war nañ ko amal ak eh, ñi nga xam ni ñoom wa waa Togo eh, bi ci njëkk nag ñu war ko amal le 11 novembre fële nga xam ni moom mooy Lomé bi ci des ñu war ko amal le 14 novembre fi ci Sénégal ca stade bu Thiès di stade Lat Dior ki nga xam ne nag moom mooy Aliou Cissé woo na pour la première fois kii di Pape Gueye nekk fële nga xam ni